mais comme ni koy waxoon sànq tey borom anniversaire bi nañu jox parce que aujourd'hui c'est le rendez-vous des chics c'est le rendez-vous des l'élégance le raffinement dakaroise kii di Ouzin waw seen euh, tey moom tàgg nga ma tey kontaan naa ci yow mais tey nag. Euh, dama ñëw kay ñoo koy partage après. ah gato gi. kado man gato yi. intéressé woon da nga andi sa waal. du am mais gato kii kado yi. andi sa waal. damay damay damay dugg si ci làmb ji. damay dugg si ci làmb ji ñëw ci ki nga xamante ni nii mooy Jules Baldé. Mm-hmm. su ma nee Jules euh, xel yi dem ci mooy magu Ama Baldé. Mm-hmm. Euh, moom génn na ci suñu làmb nee na euh, bi muy mujjee déggante ki nga xamante ni mooy suñu papa Double Less. Mm-hmm. nee na ko da koo dénk ay kàddu. kàddu yu mu mujjee wax ak moom mooy dénk naa la Balla Gaye dénk la la dëgër Ama Baldé Sa Thiès dénk bi ma leen koy dénk nag mooy dama leen koy dénk parce que say rekk lañu mais li ma lay ñaan mooy ñoom bu ñu mës a bëre seen biir. ndax ay mbokk lañ. dénk naa la ko te bëgg naa nga sàmm ma loolu Jules neen kàddu yooyu la mujjee waxante ki nga xamante ni mooy suñu papa Double Less. mu nekk ay kàddu yoo xam ne am solo encore yi fois ñu ñaanal bu baax a baax sunu maam jooju euh, di ko yàlla xaaree ak bu baax a baax mais tamit euh, Ouzin foofu tamit man déggoon naa kii di Balla Gaye je ne sais pas si je si pas. Mm-hmm. mu ne bu ñu ko joxee kii di euh, la de guerre dina bëre moom ah wax jooju dafay des delluwaat ginnaaw. Balla Gaye waxoon na ko Balla Gaye nee na suñ ko joxee avance la de guerre mu jël ko kii di Ama Baldé tamit taxawoon na laaj la de guerre ma Lac de Guiers bu fekkee moo ko wax su ma joxee avancé ma bëree. Mhm. ñoom pare woon nañ pour bëri seen biir peut nag euh, genre mag la mais lu lu woo mën a neex la parce que tey Ama Baldé imaginer mu jàkkaarloog Balla Gaye Ama Baldé imaginer mu jàkkaarloog Sa Thiès ah Ama Baldé imaginer mu jàkkaarloog mhm. du ko dàq mhm. dañuy bëre tey mu jeex buñ paree ñu àndaat gis nañ ko fi. làmb dafa dafa commencé yàqu. làmb dafa commencé yàqu. Gris Bordeaux Eumeu Sène. làmb dàq ko woon. ba léegi nañ fi xeex fi xeex bu metti boo xamante ni ñëpp a kontaan jour boobu jour boobu bi ñu bi ñu bëree dimanche xëy lundi ñëpp a taf seen écart yi. Mhm. parce que Eumeu Sène dañ ko dóor bu muy bëgg di écart bi teppeeku mu daw ñëw. Mhm. day sànq ko mu ne tey laa koy rey. bi ñu ko andiwaatee mu daan ko. Mhm. làmb yu bari yàqu na à cause de xarit dëkkandoo sama mbokk. c'est que euh, dégg naa magu Modou Lo moo takk Euh, magu Siteu mm-hmm. déjà foofu combat mu dafa am te combat bu neexoon na entre Lansar Parcelles loolu da dàqu ko. surtout seen supporters yi ñëw. merci beaucoup combat bu neex la. ba tax na nag gannaaw gannaaw nee na dénkaane boobu lañ ko jox moom tamit bëgg na koo sàmm ba ñooñu di xale yi nga xamante ni dénk nañ ko du ñu bëri si seen biir daal loolu loo ko Jules Baldé waxee. mu nekk tamit comme nu koy waxee woon sànq peut-être choix la seen seen parents ñu mujjee choix mm. te ak duñ buti wax tamit ay mbokk lañu woon nag avant Sénégal leen xam Balla Gaye ak Lac euh, nañ Sa Thiès tamit rakk kii di la. Mm. Euh, Ama ay waajur ñu. doon ànd mm. donc mu doon loo xam ne peut-être mun nañu wax ñoom ñëpp ay mbokk lañ te ñoom ñëpp mun nañu wax ay soose lañ wala ay joolaa si je me trompe donc ay soose donc mu doon loo xam ne ak làmb des fois. xaalis tam mu bëri bëri bëri bëri il faut que ñu xam ne euh, am na loo xam ne tamit moo ko ëpp solo am na loo xam ne moo ko ëpp doole am na loo xam ne moo ëpp solo mooy lii di mbokk mi tamit. Mhm. ba tax na su ma jógee foofu damay jàll ci Modou Lo la Roc des Parcelles. Mhm. Euh, moo ngi génn di rassurer ay supporters am. Mhm. nee na combat ou combat moom moo ngi entraîné. moo ngi nekk ci la mu war a nekk te moo ngi ci forme te moo ngi yëg boppam bu baax a baax di wax ne supporters yi nañ dalal seen xel. te xam ne moom moo ngi sentir boppam bu baax a baax a baax a baax. moom Modou Lo ba léegi reste sur roi des arènes waaw mooy roi des arènes. mooy roi des arènes waaw te ba léegi def comme yi kenn mu def. ah. lamb daal <laughs> <laughs> la ñu wax. loolu séeréer rek moom ah. séeréer rek moo ko mën. si longueur boobu yëpp séeréer rek moo ko mën. su ah. foofu damay jàll Taïsinga. Taïsinga kii Eumeu Sène waaw balaa ngaa dem si écrit Eumeu Sène gis nañ ne euh, démb démb xaw ma barki démb mu dem mhm. des bu rafet. dem kër Balla Gaye daal di jaale. jaale fa ay kàddu yu rafet tamit moom tamit. Mhm. ñu xamante ne ni Sénégal euh, làmb du dara. Mhm. parce que bu ñu bokkee tiis bi bu bu ñu amee képp ku ci am tiis keneen ka day dem fekki moromam ñu bokk loolu ku ci am bànneex tamit keneen ka dem fekki moromam ñu bokk bànneex bi kon supporters yi nañ ci bàyyi xel bu baax te xam ne làmb du dara Modou Lo gis ngeen keroog démb li mu def waxtaan ak Balla Gaye internet yu dem fa mu wax ay kàddu yu rafet moom tamit macha allah sa xef rek moo ma déranger nag xef bi dong moom tey moom tey moom mu ngi si foofu. kontaan naa ci yow bu baax moom tey moom mu ngi si macha baax baax. su ma jugee foofu damay dem ci Eumeu Sène euh, ñoom euh, def nañ def nañ def nañ def nañ six défaites trois victoires. taysi nga. taysi nga taysi nga xaaral day waaye. non zéro palmarès. zéro palmarès six défaites trois victoires moom daanaka du palmarès bu baax. palmarès gaa nag saison bi jeexagul mm-hmm. mais nag. Euh, mën nañoo gën a mën a liggéeyaat. Mm-hmm. war nañoo gën a mën a liggéeyaat ndax ay xale lañu. Mm-hmm. te am nañu yaakaar ci ñoom bu baax a baax a baax a bu baax a baax am nañu yaakaar ci moom bu baax a baax lii di écurie Tay Shinger kii di Eumeu Sène jiite ko que Eumeu Sène tamit ñëpp xam nañ ne booy wax làmb booy tudd lii di trois premières mënoo si génne Eumeu Sène. Mm-hmm. moom ak lii di. Euh, Gris Bordeaux mu neen combat boo xam ne peut être kenn dootu ko euh, fàtte. man mii man mii sama souvenir ma nekkee xale temps yooyu noonu ma jóor bande bi daa teg fii jël këyit daf fi dem dem suñu école dem jàngi mais bu boobaa suñu professeur bi ma wax ma ko fàtte awa daal. waaw combat boobu nag bokkoon na si combat yi gën a neex si man mun naa mun naa jàpp ne mooy combat yi gën a neex si làmb yi. Mhm. parce que amoon na bëre amoon na jàppante amoon na lépp. Mhm. nekkuloon euh, euh, supporters yi ñëwoon seetaan si. Mhm. per ñu seen xaalis mais làmb léegi dafa dafa dafa dafa ñàkk loolu. parce que da ngay gis léegi mbëri dañuy ñëw duñu ëllëgee ñu bëre wala ëllëgee ñu jàppante mais dañuy sóoraalante. kii naan kii naan du ma nangu mu daaneel ma kii naan du ma nangu mu daaneel à la fin ay nil la wala ay victoire sur euh, blessure waaw waaw décision arbitrale loolu lañ war a changer gën a ñëwal affaire yi mhm. pour gars yi mën a mën a mën a dekkalaat li li fi li fi nekkoon mhm. parce que làmb quoi qu'on puisse dire làmb moom fu mu nekkoon nekkatu waaw comme comme waaw comme ni sa invité bi ni mu ko waxee woon sànq booy ay xale lañ mhm. am nañ doole mën nañ liñ def pourquoi pas ñu pour état bi man laay laay laay lancé appel mu def benn benn benn kii. benn benn tournoi jox ko jox ko promoteur mu jox CNG. waaw booy tëggal leen tournoi gala def leen parce que kalaaf bi ah, doo xoolee bi bi Gaston organisé woon entre Balla Gaye mhm. ay Modou moo fi génn ay champion mag mhm. loolu la war a réitérer defaat lu mel noonu. pour mhm. lamb gi mën a dundaat parce que lamb. facteur de développement la. loo ci mën a xam ba dégg ko ci mooy état jàppalewul làmb. waaw moom dafa war a teg loxo làmb mais mais état jàpp jàpp naa ne moo moom moo ngi jàppale làmb parce que kii di Makhtar Ba tamit ñëpp xam nañ ko gis nañ ko li muy def si wàllu sport mun nañ wax sax ne depuis ba Sénégal amee ministre des ba léegi jàpp nañ Makhtar Ba li mu def si sport. non non def bi def bi def bi def bi d'accord. parce que li muy def mooy euh, lu ñu musul am ci ministère des sports la ñu am ci moom. làmb bu jot mu ñëw. événement boo ko mu ñëw loolu la ñu amul woon te moom la am ci moom. point. mais organisation affaire bi waaw organisation organisation gën a laaj. état da cee war a jàpp ba ñaar loxo état mu def ko ci. parce que facteur la di tëgg ay tournoi di boole xale yi. di tëgg ay mbapat. ñu xam ne kat état moo tëgg mbapat bi wala CNG moo tëgg mbapat bi ñu xam ne ci loxo état la jóge mais jàppale bi promoteur yi ñoo génnee seen xaalis di ko def fi lamb. d'accord xam naa bu baax a baax kii di la Saint-Louisienne j'espère que bu baax baax dégg nga kon bokk sama mbokk yi li wax nee nga jàppale lamb ji bu baax baax bu mu fekkee kii di Makhtar Ba moo ngi def benn travail bu exceptionnel mais comme ni ko waxee benn rek doyul il faut que gën a def pour Sénégal gën a jëm kanam